nag bërki démb ci ngoon Cheikh Bass dafa dem ci sëriñ bi waxtaan ak moom ci li nga xam ne moom la ndaamaatu di dund ak yenn ci gox yi Touba yi muy juróom-ñetti point yoo xam ne nii la mel ci ndox mi xamal ko ko ndaamaatu ñu ngi ci jafe yi foo ko takk rek weesu na ko ba xamal ko ne ko ajjuma ji ñu ngi ci ñetti ajjumaa ngi nii julli wuñu ko ajjuma ndax euh, ñàkk mën a dem ci barab bi ngir julli ajjuma ji te ku nekk xam na ne tey la ajjuma ak sëriñ bi ni ko diine ñore ak ni ko julli ñore xam naa ne loolu nag bokk na ci li ko gën a metti lépp metti nag waaye loolu bokk na ci li ko gën a metti loolu moo tax mu ne jox euh, Cheikh bas njigal ne ko nu mu gën a gaawee nañu def fexe ba maanaam jafe ñi jafe-jafe nekk moom mu saafarawo ci loolu nag la Cheikh Bass euh, joxe ndigal ci entreprise bi nga xam ne moo koy liggéey saisir état bi ne leen lii askan wi dund daal nañu fexe ba mu jeex nu mu gën a gaawee ci loolu nag ñoom saisir nañu entreprise bi mi ngi ñëw ak directeur ONAS indi nañ matériel bu bare bare bari maanaam ci ci fii ngir ñu liggéey ko sapeur pompier ak sapeur pompier ak commune bi ñoom yëpp ñëw nañ matériel bi mi ngi ñëw yenn pocalin yi teg nañ ko ci potosaar yi ñu ngi ñëw ngir dimanche ñu mën a fexe ba ngàcc ndox mi ba mu set ñu yóbbu ko pour mën a gas benn canal boo xam ne dana nekk ci point baa yëpp yóbbu ko Kër Jàng ba bu tawee benn ndox dootu fi taxaw ndig loolu la ñu jotoon ñu ñëw dalal xelal askan wi massawu leen ci métit yi ñuy dund ndax léegi bi ñu ci recensement yi lu ma téeméeri kër ak juróom fukk ak nangam génn nañ seen i kër dem ndax ñàkkati fee mën a dund ngir ndox mi ñu di leen masawu bu baax a baax di leen ñaan rek ne sëriñ bi moo ñaanoon ne yàlla nañu yàlla may ndoxam jàmm ndox mi nag ñëw na ndox nag bu yàqee benn dana defar fukk ñu da xamal ne métti na ñëpp nag képp koo xam ne ab jullit ga ko di gis lii ñuy dund métti na la ñu ngi leen di masawu waaye li muy métti métti nit ñi sëriñ bi la man gën a métti ak euh, Cheikh Bass porte parole bi nga xam ne maanaam mooy tànki sëriñ bi ak làmmiñam moom it dox na ci yitte jumat sëkk-sëkk ci la sisiré état ñëw wax ko sëriñ bi bi xamee tolluwaay bi nag la ñu jël ay mesures ci na ñu fexe fexe ba askan wi nekkaat ci jàmm looloo tax ñu ñëw ci imam bi euh, waxtaan ak moom ak askan wi leeral ko li nga xam ne ay ndaw lañ yoo xam ne dañ ñoo yónni woon ndax Cheikh Bass ak. Euh, sëñ Koso lañ waroon a àndal ñëw fii waxtaan ak ñoom waaye xew-xew bi moo tax te wajuru seriñ Koso moo nelaw loolu moo tax munul ñëw loolu moo ngant loolu moo dal Seex Bas moo ne mën naa ñëw ci ñoom waxtaan ak ñoom